alaikum wa rahmatullahi taala wa Barkatu, euh, Mboko Sénégal euh, plus particulièrement ma région ma fierté Nangan, Nangan euh, tous les responsables qui sont là-bas tey là, seen jàmm sen mbokk sen Kharit, moom monsieur l'ambassadeur Wahul, le lion de Dien Farbassar Wahul, chef de cabinet à la DGP Wahul mais un digne fils de Kaolack un Kaolackois bi nga xam ne franchement moo dëkk Kaolack juddoo Kaolack nekk Kaolack fier d'être un Kaolackois je suis fier d'être un Saloum Saloum De bi Kaolack su ma sañoon Kaolack mooy dàq ci Sénégal yëpp su ma sañoon Kaolack mooy dàq Sénégal yëpp Kaolack boobu moo fay dàq su ma sañoon jeunesse su Kaolack ñooy ñëpp ay liggéey su ma rek lay Kaolack di am ci je pense bien donc tey ñëpp euh, tout le monde sait que le président de la République Macky Sall était à le mercredi passé macha allah Nous comptons lool nous les Kaologois, on était très content On dëgg yàlla accueillir la euh, ku ci nekk def li nga pour euh, événement bi am réussite totale ñu lay président de la République de le sentir de la crème. di la une très bonne continuation Il y a la jàmm ak sutura ba nga yeggale sa sago ci barki yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, di ñaanal aussi sa mbokk ak sa gouvernement yëpp ñu am jàmm ndax yow boo amee jàmm rek ñu am jàmm waaye dama xaw a am kersa dama xaw a rus tey ni may waxee nii dama am gàcce dama rus en tant que un Kaolackois man je de déçu euh, maa ngi li may wax jii nag dama koy wax ñëpp tous les leaders nga xam ne Euh, mës nañ jaar kaw rek nekk leader ku ci nekk ku wér di xam sa bopp ndéem sax am na ñoo xam ne jàmbaar lañ góorgóorlu lañ ndax lañ def Kaolack doonuñu ngi ku ko def te xeex gi ñu nekk te ñoo créé Kaolack waaye nag dinañ ci boole ndaxte boo lañ ci boolewul rek dañ lu leneen bien vrai que ñoo xeex kawla bien vrai que ñoo samp parti bi Kaolack bien vrai que euh, ñoom ñoo liñ lañ def ci jeunesse su Kaolack parce que may la jën jàngale nañu nappee boo gën te moom jàngale ñu bari ñuy nappee waaye nag comme di nekkoon na nguur joxoon na ko dara il faut ma ñu boole ci ñëpp ñu waxtaan tey dañu waxtaanee Kaolack euh, j'appelle tous les leaders ñu may oo ñëpp di leen nuyu d'abord ki nga xam ne mooy monsieur le ministre Diène Farba di sama baay di sama xarit maa ngi lay ziar di nuyu mon frère Pape Demba bi tey directeur bu Senelec di nuyu suma mag Modou Ndiaye Rahman mom loko meuna waxal rek mom franchement amna na générosité di nuyu mustapha Sow mon frère bon ami di nuyu wax deug yalla responsable yu nekk Kaolack Mariama madame le ministre Youssouf Benzeloum Moussa Fall Aprodel Nemet Nafissatou Diop Awa Gueye wa attaque tous les leaders qui sont en Kaolack man Ousmane Noël tay maa ngi adresser di wax ak yene dama xaw am gàcce dama xaw rus ci kaw nag ci liñ nekkee te xam ne fuñ jëm barki démb dama gis président Macky Sall di wax Fatick ba waxee xol waaw président Macky Sall su leen waxee dëgg tey boo leen waxee dëgg mooy il n'est pas content de vous il n'est pas content parce que il a tout fait pour vous Macky Sall def na lépp Macky Sall def na defal na teraanga yëpp mais yéen yéen fayul naar bi xoromam nañu wax dëgg gars yi ñoo fayul naar bi xoromam tey jii sama région laa mën a wax la région de Kaolack fu mel ni Kaolack ci réñu Macky Sall yëpp ba parce que barki dama dem a gis barki démb président Macky Sall dem Kaffrine ci benn ministre moo fa am Abdoulaye Sow Kaffrine nga xam ne Kaolack nu ko ëppee kenn xamul lan la Kaolack di Carrefour Kaffrine Kaffrine ci benn ministre ñu am li ministre bi xeex bañ am tey jumtuwaay yi ñu am tey macha allah ci yanj ci rafetaay lañ am yëpp yëpp seen seen ministre moo ko xeex ñoom ba Kaffrine am ko ñun Kaolack ñaata ministre la am Kaolack ñaata directeur généraux la am Kaolack ñaata ñaata ñaata ay responsable la am Kaolack ñun mënuñu xeex ba Kaolack am dara ñu nekk si suñu xëccoo nekk si suñu bañante nekk si suñu waa waa waa ji ji ba xamoon nekk si suñu complot ay lobby lobby lobby ba mënuñu am dara Kaolack muy gàcc si ñun di gàcc si tous les responsables kawlak amul dara Kaolack amul dara muy mais Macky Sall lu mu deful Macky Sall ay ministre Macky Sall def na directeur ay ay directeurs généraux ñaata directeur généraux ñoo fa nekk Macky Sall mais président Macky Sall a def peu ba encore nous dina la ligne nga def lii def def non non non non même su qu'il ne Kaolack fa la jàngee Macky Sall c'est le président de la République de tous les Sénégalais il n'est pas le président de la République de des mais de tous les Sénégalais mais ministre la jox kawla député ñaata directeur généraux ñun ñooñu autorités yi lan ngeen apporter Kaolack dama bëgg a tay ñu wax ma tay ku ci nek lan nga apporter le lan la ludul ludul euh, mobilisation def mais c'est une très mauvaise mobilisation bu leen ñi bari na mobilisation man sentir mobilisation bi ñëw kaw tay kaw la bi président Macky Sall di ñëw bo la mobilisation bi deug deug deug man mobilisation bi du mobilisation bu Macky Sall mérité euh, am Macky Sall il mérite plus le président Macky Sall mérite plus mobilis la ak une ak responsable li nga fa nek li am waru mobiliser lu man je suis pas content je suis dessus, responsable est là oo Macky Sall a tout fait pour vous. ñëw leen bàyyi leen seen simmeeku simmeeku leen nañ bàyyi suñu bëgg-bëgg yi ñu am suñu bañante yi ñu sommes tous foo très foo les gens qui te montrent des dents blanches alors qu'ils sont de côté derrière bu ñu la tiimee dina reetaan à na ñu jamante suñu biir nañu bàyyi suñu false gi nañu bàyyi suñu faux gi te àndandoor doon benn jàppoo jéem a jëm jàppale wax dëgg yàlla benn bokk yaar pour ñu mën a gañe Kaolack li fi ñu jëm ni su fekkee nii lañ nekkee maa lay waatal ci président Macky Sall bu yeboo nga kenn on va perdre Kaolack encore. on va perdre Kaolack encore moi je vous dis la vérité monsieur le président moi je vous aime trop bien Maintenant nee la je vous aime pas parce que tu vous êtes beau je vous aime pas parce que vous êtes le président de la République je vous aime pas parce que yow yaay nangam déedéet je vous aime parce que ak na vision. Je vous aime parce que vous avez une personnalité, parce que vous avez une respectabilité, parce que vous êtes le meilleur président sénégalais de tous les temps, parce que vous êtes un patriote, parce que vous avez travaillé. li def Sénégal euh, le président yu yu fi un peu ba de ñëwee Il a ñëw rek plus. quadruplé neexaluma la waxuma la pour lu la neex waxuma pour li nga ma def de temps. Il Muhammad dama koy wax parce que dama président bu fi

nga xam ne tey bo ñu en tant que pouvoir bi fi pouvoir bi nga am rek mais amul défendre les projets du président Macky Sall et pourtant c'est le maire C'est le maire kaw la le ministre Sow de Kaffrine le ministre Sow hein Sow je pense hein ah, le ah, ministre Kaffrine xoola mu xeex ba Kaffrine am dara ñun lan lañ xeex ba Kaolack am Kaolack lan la am man Kaolack ba ma dalee politique ba léegi aw ma doole li ma am mooy samay yi ma am samay un million deux millions trois millions social jënd xar tabaski jënd korité jàppal leen jënd nag gàmm loolu laa am mun aw ma leneen su ma ko amoon dama koy ñafe mais responsable yi am ay postes de responsabilité les ministres de la république les directeurs généraux lan nga ñu indil Kaolack lan ngeen xeex ba mu am yéen ñi toog conseil des bu leen toog conseil des xeex Kaolack ne ne monsieur le président Kaolack soxla nañ fa lii soxla nañ fa lii Kaolack lan nga fa am lan yow boo amee gan da ngay boo amee gan da ngay rus foo ben-ben benn benn lieu da la am lieu de divertissement cœur de ville bu Serigne Mboup cœur de ville benn lieu de divertissement la ñu am muy cœur de ville Kaolack lan la am parce que yéen ko xeexu ci nag bi nag bi mooy présidence nag bi mooy président Macky Sall nag bi président Macky Sall jël na ay jox léegi nag yéen lan ngeen xeexal Kaolack ba indi ko fa ana lu ñu xeexal Kaolack yar rien yar rien ah? bi baaxul j'ai vu keroog ak ak ak aussi Pape Marie ci Saalum nga bokk fa euh, ci Thiam euh, euh, ci Thiam sama xarit bi le ministre la Saalum nga bokk ñaata ministre ñoom rek ñoo nekk Saalum Moustapha Ba Saalum nga bokk ñaata ministre ñoo nek salum di diwaanu Saloum rek salum lan la am salum lan la am fa la salum tollu le président Macky Sall a tout fait il a tout fait il nous a tout donné mais ñun lan lañ xeexal la tey jii président Macky Sall bu joxé ben affaire ñun ñoo wara a taxaw jóg ne taw Kaolack assainissement ne Kaolack infrastructure ne Kaolack ay usines ana ban ministre mo xeex pour usine Kaolack yi ibi ana ban ministre mo xeex.

ñaan président de la république wañ ay loxoom ne ko Kaolack bëgg nañ usine yi ubbi Kaolack bëgg tali yi taxaw Kaolack bëgg nañ euh, jeunesse bi liggéey Kaolack bëgg nañ ay lieux de divertissement bëgg cadre de vie mais y a rien absolument malheureusement je suis déçu je suis vraiment déçu barki de mobilisation bi am président Macky Sall di ñëw Kaolack gis naa ñu jugee jëlee ay militants indi ko Dakar gis nañu indi ay asiko ay asiko asiko asiko jugee ko way dem nañ ba juum nañu wa waa way gërëm nañ la benn ministre indi ay asiko way parce que vous n'avez pas euh, une, une, une, une, très bonne base, une base affective bo SN. Bolin li l'imam a adressé Farbangom. Farbangom, comme le président de ngay ñëw di xol ci les responsables. Farbangom, le Nyoti, ba y a un ragné, il y a ragné, il y a un ragné, il y a un ragné,

non non non il faut ngeen ragné ñan ñooy mobilisateurs yi il faut ngeen ragné ñan ñoo liggé sen gox il faut ngeen ragné ñan ñoo franchement nek ak président de la république ci terrain bi di liggé ci terrain bi les hommes de terrain ngeen jappalé len man lima def non <laughs> lima def non ngeen gis ko ci mbolo bu bari mobilisé wu ma dé parce que je vais parler moyens j'étais fatigué lima gis non man ma oore parce que ça c'est une base effective je voulais vous montrer que man ma base est affective et saine j'ai fait j'ai fait juste ben selfie la def ne maa ngi toute la population de Kaolack ñen génn ñu ñu ñu président Macky Sall selfie mën ngeen ko gis mo gën xool leen yi ñu toute la jeunesse était devant chez moi képp ku ñu yaa ñëwal sa bopp parce que je vais parler mobilisation dafa mu laaj mobilisation nit ñi duñ xar duñ ay bay duñ ay nak nit on paye personne on paye personne waaye ni nit boko ko boko boo boko mobiliser mo ñu mobilisé ci kër nit ki amna kuy jaay crème amna na ko yor jakartaayam day versement lay def amna na ko jaay géej table géejam amna na ko yor ku nekk marché fu ngi jaay les militants amna na ko yor table ketchax yaa deg amna am na koy jaay ndox ñoom ñëpp di verse banque xana bo leen mobiliser ñu ñëw yenn si kër di lan togg la añ buñ toggee ay na dugg ci kaar yi kaw rek fait fait très chaud ñu dugg ci kaar dem ba goudi ba ñew xana goudi buy dem nga yëkkati ben journée sa tek ko ci loxo nak journée bu mu perte yëpp journée bu mu perte yëpp su demee nak mën a defal ndekki ay doomam wala sa joxe dépassé élection c'est le minimum Je ne mobiliser pas de man avec mes militants je amul moyen mobiliser je sais que tout le monde même je sais que bëgg nañ waaye que je abusé wu duma, Je duma, duma, abusé gentillesse Je dégg sen, sen, am ci man ma di lañ def franchement les dafa am solo base dafa am solo base affective ñu la bëgg sopu dafa solo mon frère mon ami Pape Dembe bi Pape Demba man xam je beaucoup Pape je nga xam sax xam nga ne man yow ku la na sa ku am mais ni nga défé nonu ci arrêt Jakarta man je suis pas d'accord monsieur bi man je nga arrêt Jakarta mu lu mais pas nga jël leen nii rek jël leen nii parce que président Macky Sall mooy ñëw non non non non nañ doon lu dëgg parce que keneen keneen ëllëg keneen arrêté Jakarta jël nga leen mais ëllëg keneen keneen bu lañ jëlee mun nañ ëlbatiku ah saagara yow wala ñu ëlbatiku euh, contre ñun parce que boobaa créé créé créé loo xam ne daf def la ñuy toogloo xam nga arrêté Jakarta yi Pape Demba bu leen bëggoo toogloo xam loolu la ñuy def da nga la ñuy créer entreprise ñu entreprendre da nga la ñuy dimbale ci financement bu mag mag mag te tu tu prends tout comme yàlla may na la moyen jox na la boîte bu gën a mag muy Senelec da nga da ngay oo les jeunes nga dimbale leen créer entreprise lebal leen benn trente million wala benn vingt millions wala benn cinquante million nga arrêté nga ñu ñu ubbi leen entreprise arrêté Jakarta yi di ci liggéey di si am doole bu yàggee ñu sopp la sopp président Macky Sall ñu topp la sans dara mais ñu jël leen. peut-être eh, non non non pourtant c'est ça nit ki est quoi jàppale jàngal ko nu donc mon frère mon ami monsieur le directeur général d'accord mais tu bëgg nga ses responsabilités vous êtes un intellectuel vous êtes bon vous avez un grand cœur xam la ses responsabilités de Kaolack ses responsabilités nga mais pas ni. C'est trop mou. Ni je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Mourir rarement. comme attaque de mon coin Mais ni que général. Ni que général. Mais moi je monsieur de vous. Moi, yo pour yo le prêt So yo reste à Am Dédé. Da ngay terrain ko wax. Ñi gis la, ñi xam la, nga même cofeel saa fonte moo koy faj nit ku baax nga nit man xam nga man man boo defee erreur ma dal la mais nit gënu la ci àdduna nit tu es généreux mun jaay ñum yëpp bon bon bon ku ne gis na mun jaay rax def ay social jënd ay ceeb jënd ay xar jox population Kaolack mais dafa des lu mu des mooy yow yaa wàccu ci terrain bi yow da ngay wàcc en personne saafante ak jaamu yi mbëkkante ak jaamu yi waxtaan ak jaamu yàlla ñu xam kii ma mun jaay rax ma li la ah? madame la le ministre Mariama Sarr sama yaay suma xarit nga yaay mais xoolal yow ba ministre Macky Sall sosoo ba léegi madame madame la ministre yaa ngi nekk ministre de la république jëlal sa responsabilité Mariama sama yaay jëlal sa responsabilité ci Kaolack jëlal sa responsabilité nga téye jëlal sa responsabilité ci ay proximité jëlal sa responsabilité nga jàppale tous les leaders yi nga xam ne ay leaders leen te bëgg nañ président Macky Sall jàppale leen jëlal sa ndaxte Macky Sall teral na la Mariama Macky Sall su dimbale na la yow 2012 ba 2023 macha allah fa tabarakallah yàlla bu la ca djap ah ben yon je pense que la la génne gouvernement du après dugalaat la comme président Macky Sall lim mu waroon yëpp def waraloo yëpp def nako ko kon jëlee ses responsabilités ngeen jàppale ko kaw nag amul dara franchement je suis déçu je suis vraiment déçu je suis vraiment désolé de le dire je suis désolé mais lu ëpp tuuru dafa fees sama xol fa moo ko Macky Sall dafa kontaanul dañ ko fayu na dañu fayu naar bi xoromam Macky Sall lam def barke alxuraan gis nga yéen ñi di contre président Macky Sall ñii di président Macky Sall lu ñaaw da nga ko xamul président Macky nit bu ko gën amul billahi lazi la ilaha huwa c'est un patriote xol bu rafet na yoon Macky Sall nit ku baax la jàppal leen ko nit ku baax la mais yéen ñii yéen leen leen leader Kaolack waa yéen laay waxal wàcci leen si terre te ngeen bàyyi seen seen seen seen xiiroo beeg ngaayoo bi nañ bàyyi suñu affaire xiro bi man de Ousmane Noël pare pour nekk seen jaam man buñ jàppoo man pare naa nekk seen xale pare naa nekk seen jaam pare naa nekk naa seen lion pare naa nekk naa seen pour ñu wàcc ci terrain président Macky mais il est il est il est temps il est temps Meli lii ah yéen ñëpp Pape Malick Ndour Pape Malick Pape Malick encore Pape Malick Pape Malick Pape Malick nour vous êtes le ministre de la jeunesse man eh, Mbappé man franchement man je suis pas d'accord tout tout monde. Mbappé pour Mbappé c'est un français Il ne faut pas que nous am ay complexe d'infériorité Mbappé Mbappé c'est un français vous êtes un ministre de la République vous représentez la République vous êtes un Sénégalais et fier de l'être Mbappé c'est un français il défend les couleurs de la France yow Sénégalais nga nga tout ça, sa nga tudd Sadio Mané wala nga tudd Amara Traoré wala nga tudd ala Hadj Diouf moom gënal pourquoi Mbappé ak ban lien lien la am da nga gaw mais a ci kon nañ wàcc ci terrain bi bu du fekkee da nga gaw nañ wacc ci terrain bi Pape Malick yo sama xarit nga bañ la nommé j'étais l'homme le plus heureux du monde du ma tay du ko wax sama xarit nga Pape Malick fuma la fekk man je te respecte je t'aime beaucoup parce que je nga te vous êtes engagé envers euh, à côté du président Macky Sall da nga engagé wu mais wàcc nañ wàcc ci terrain bi nañ wàcc jàppale responsable euh, responsable Kaolack waay yi nañ wàcc ci terrain bi nañ bu nekkee bu la nekkee te conseil des ministres xeex leen pour Saloum am dara Pape Malick bu la nekkee te conseil des ministres xeex leen pour Kaolack am dara Kaolack amul dara Kaolack Kaolack dafa vide ah. Kaolack tilim naa Kaolack salte naa Kaolack lëndam naa Kaolack amul liggéeya ah, usine yi tëj naa nañ jóg ñun président Macky Sall lañ bëgg nañu jóg nañu jóg ba jàppal Macky Sall Macky Sall a tout fait Macky Sall a tout fait directeur général ministre député si Saalum yëpp mais ñu duñ ko dimbali ñu tamit duñ jóg dimbali ko il ñu jàppale Macky Sall ku ko xas ku yëpp lu Sall rek ñun ñoo tax les responsables ku yëpp Macky Sall rek yéen a tax responsable yi ñoo ñoo ñoo tax ñu xas Macky Sall Macky Sall dafa amul lantinoor mais c'est gravissime c'est gravissime nañ jóg nañ jóg mu liggéey xeexal Kaolack ci conseil des ministres Kaolack am dara lii nag depuis trop longtemps maa ngi koy wax ñaata yoon laa ko wax ci àdduna wax naa ko ba sonn